sëñ Abdou mu ngi noonu daal di daal di yegg si nous en direct nous sommes ah, ah. waaw li may wax mooy li am solo mooy tey séance bi li ko tardeel mooy li nga xamante chef nous sommes en direct sur la TFM. li nga xam ni ne peut pas couper comme ça en direct. en direct on li nga xam ni moo am tey bloqué séance bi mooy benn Bokk Yaakaar moom moo bëgg a def ñaari groupe comme Wallu ak Yewwi beneen bi article 54 bi nga xam mooy constitution bi dafay wax ni. tey mënoo nekk député nekk ministre loolu mun a am loolu moo waral tey ñun opposition bi dañuy taxaw pour veiller si li nga xam mooy constitution bi du ñu ko def tey duñu ko def ëllëg Abdoulaye Daouda Diallo ak au conseil ñi nga xam dañoo nekk ministre te conseil bi wax leen ni leen amu leen sañ-sañu nekk ministre nekk député il faut que ñu démissionné wala président la jënd seen mbaraanum kii euh, euh, seen fonction beneen bi article 51 ci règlement bi dafa wax ni. nit mënuloo maanaam heure bi ngay nekk député mooy bi ñu réclamé li nga xamante ne mooy conseil conseil sur bi mu réclamé sur boobu nga nekk député kon boobale lu tax ko ñoom tekkiwuñ seen ndomba tànk wala ñoom démissionné wuñu wala tekkiwuñ seen ndomba tànk loolu mooy ay caaxaan la beneen bi tey boo xoolee tey règlement intérieur article 86 dafay wax ci affaire bulletin nee na bulletin ñeenti bulletin moo am mais léegi comme am nañ léegi ñett ñeenti candidat te waxul bulletin yooyu noonu loolu ki ñu mën a àtte mooy conseil constitutionnel moo war a wax ni mën nañ ko yokk mais bulletin yi bii ak bii ak bii la kon bolokaas yi loolu moo tax même bu ñu ubbee tey science bi dañuy boloke tant que ministres yi génnuñu ndax ci constat la ñu sukkandiku pour ñu génn leen ndax tey ñoom amuñu majorité ñoo am majorité te li ñu fi bëgg pour askan dana am incha allah. incha allah candidature yi nga xam ne mooy candidat yi man dama renonce sama candidat parce que intérêt peuple bi moo ma gënal man ma nekk ay candidat poste président ndax loolu ak xàjjale la. Mhm. nee naa leen am naa liste am naa 109000 am naa 27 pour cent ci coalition yi am na juróom-ñaar député waaye dama bàyyi pour que bàyyi Lamine Diallo Thiam pour mu nekk candidat li nga xamante ne mooy candidat présidentiel. loolu mooy li nga xam moom mooy li si am. jërëjëf honorable jërëjëf Abdoulaye ñu bàyyi la nga wéyal liggéey wi euh, le temps liggéey wi dafa mel ni mu ngi tàmbaliwaat euh, comme ça ñu xool li nga xamante ni moom moo nar moom moo nar a xew ci hémicycle bi euh, ñu andi leen lépp li nga xamante ni xabaar la xam nga yëf yi mu demee rek donc moo tax tey jii nii gis ngeen ne xaw yi dafa yëf yi dafa xaw a jaxasoo